tey euh, di remettre moy li ñuy wax ne rek support moy soutien ay chèque si enseignement privé euh, bi pandémie bi commencé jël nañu ay directives yo xamné ñoo jóge ci président de la république pour que ñu jéma sét nan lañu wara def pour ñu accompagner enseignement privé. président de la république jox ñu digal né ñu donc il faut que ngeen waxtaan si secteur bi ngeen xol

école bu reconnaître le ak benen bi ñu jéem a également ñaata la ñu am ay enseignants ak élèves lool nak mo taxone tay ñu ñew fi tog ak ñom waxtaan jox leen seen chèque yi ñom ñëpp comme ça ñu mun ko jot. mais di leen wax nek enseignement privé am nañu en tout cas ñun fi ci ministère bi jëloon nañu ay décisions malheureusement pandémie bi mo tax que pour que ñu mëno waxtaan ci enseignement privé ñu xolat texte yi di organiser enseignement privé ñun ak ñoom ñu jéem a xoolaat règlement intérieur bi condition de création condition de fonctionnement bi contrôle bi ak yëpp donc defoon nañ demoon nañ ba pare loolu waaye malheureusement pandémie bi moo tax loolu dañ koy renvoyer ba ci kanam gis naa nag ngeen ne li ngeen perte ci pandémie bari na waaye loolu nag yéen la ak yeneen entreprise yëpp privé ak public pour le moment commencé nañu def lii laaj ngeen aussi nañu seet nan lañ ko yokkee donc ñun dinañu defaat plaidoyer bi pour que également social, ande ñu mëna a également dans de bonnes conditions suñu némé ba def ba am suñu baccalauréat ou bien suñu BFM ak CFEE classe intermédiaire yi aussi génne nañu ay critères critères donc leer pour que ñu jéem a ñom ñoom nan la ñu pour ñu jall mais am nañu encore un défi comme euh, ni ngeen ko waxé légui défi bi moy nan lañu wara fexé pour que année scolaire bi ñu mun ko démarrer dans de bonnes conditions donc ñun en tout cas ñu préparer préparé nelawuñu ñu ngi préparé pour que ñu mën a démarrer dans de bonnes conditions suñu année scolaire bi nar a ñëw. ni ma gisee nag ñun ni ñu installé fii mooy li ñuy wax ne apprendre à la maison mooy rajo numérique internet lépp yéen aussi li ngeen di def. si seen école yi parce que ñun xam nañ ko ni ngeen di suivre élèves classe intermédiaire yi gëm naa ne que suñu résultat yi mun na am ñu gën a baax déwén yi ñu amoon daaw dimanche donc si nous avons résultat résultats, nous préparons ensemble Nous avons effectivement une très bonne rentrée dans le secteur B.